la Zeneva. Zeneva. Genève. On est là à Suisse. Hein? Suisse, Suisse, Suisse, Suisse, Suisse, Suisse, Suisse, Suisse. Suisse nag dafa set luxe am ay valeur ba pare nag don dëkk bu luxe don dëkk bu set madame Kabara yeni à Suisse. Hmm? Machallah, car kàr kàr tubarfakalla waaw ah, mu Suisse nak c'est une autre chose ah, Suisse man nak mangi ni nii bébé Camara Papizo waaw ah. tey nag dafa am ben tour Suisse buñu wara war def mhm. dañuy wër Suisse Inshallah. Ah. madame Camara avec Ami si sa sœur sœuram bii moo dëkk Suisse Tay moo ñuy wan Suisse promenade d'action. Swatch! Madame est en train de mac pour aller poudre, hein, shopping, poudre.